dafa am actualité boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy ñi citoyen ak képp ku mu mën mu am fi benn projet bu rëy boo xam ne président de la république Macky Sall moom la fi indi ci Sénégal ñu def inauguration bi semaine bi nga xam ne moom la ñu génnee décembre projet boobu mooy projet train express régional train boobu actuellement mu ngi daw am na problème yu bari yoo xam ne man na ko régler ci réew mi parce que gis nañ Dakar problème transport bi mu yaakaar nañ comme sénégalais yëpp les trains bi bu dawee normalement ñu exploité ko normalement lépp jaar normalement ñi dëkk Dakar ak ñi dëkk Sénégal de façon générale mën nañ ci gis njëriñ waaye nag dafa fekk ne réew mi ñëpp ñoo ko bokk ñun dañuy def politique te pour ñun dañu jàpp ne politique jaamu sa askan la dox ci njariñu sa askan la politique nekkul looy wutal sa bopp loo xam ne pour yow ak sa njaboot contre lay doon bi ñu présenté projet bu rafet boobu teer Sénégalais yu bari rafetlu ko ñu ne nag waxtaan bi mënul yem ci lool parce que même bu dee président de la république ak ñi mu àndal dañu bëgg lu baax ak lu neex seen askan la doxal dañ ko war a jaarale yoon manoo ne da bëgg sa njaboot ba tax luy jar 1000 francs nga jënde ko 10 francs luy jar 10 millions nga jënde ko millions donc dafa am affaire yu ci laxasu yoo xam ne moo tax boo leen seetloo 31 décembre bi passé ñu def benn émission ci 2STV wax ci li nga xam ne moom mooy suñuy laaj ñun waa parti Awalé ñu ne leen yéen doxal tey projet bu mag boo xam ne sept cent quatre-vingts milliards le Sénégal jëndee matériel bi ñëwaguma marché bi matériel bi rek li ñu ko jëndee pour ko pour mu taw pour mu daw daw ci premier jour bi milliards yéen ngi tey société privée boo xam ne moo ko war a doxal war ci am ay bénéfices ba léegi kenn waxuñu fan ngeen jaar ak suñu ay loi ak suñu ay règlement pour jox alal ju doy noonu société boo xam ne du société sénégalaise du société en boo xam ne ay sénégalais ñoo ko moom pour ñu doxal ñu laaj nañ ci ay laaj ah ba leen ki nga xam ne moo représenté woon gouvernement bi toog ak ñun muy le ministre de l' économie à l' daf ñu ne contrat de concession la dinaa ci ñëwaat barka démb ñu dégg le directeur général SENTER SENTER bokkul ak SETER dinaa ñëwaat SENTER mooy société bi nga xam ne Sénégal moo moom ñu dégg ko mu ne contrat de concession contrat de de prestation de service maanaam sax nee na sous-traitance donc ñoom ñaar ñoo ñoom ñaar ñooñu ñëpp nekk ci gouvernement bi ñu ngi doon jéem a tontu ci question yi nga xam ne laaj nañ ñu bare def lettre ouverte lettre ouverte boobu ñu adressé toutes les autorités du gouvernement yoo xam ni laal nañ ci dossier boobu muy waa SETER SENTER muy le ministre des finances muy le ministre de l' économie muy DCMP ak ARMP ñi nga xam ne affaire u i public maanaam bu ñuy liggéey ci alalu Sénégal ñooñu directeur général u SETER ñu jàpp ne tontu yooyu dafa woyof lool espéré woon nañ ci ñu gouvernement bu ñu posé question yu mel noonu ñu jox ñu ay tontu yu gën a leer loolu moo sabab tey ñu di leen sant di leen gërëm ci temps bi ngeen xam ne moom ngeen ñu ko jox pour déglu ñu ñu waxtaan ak yéen waxtaan bi nag du lu tubaab di wax déballage maanaam xam leen lu kenn xamul ñëw di ko wax pour am ci ndam. dafay doon waxtaan boo xam ne échange d'information lay doon ñun ñu boole li ñu xam ak li ñeneen xam ñu xool est que suñu alal yi ñu dénk gouvernement président Macky Sall ñu ngi koy jaarale ci yoon wala jaarale ci kaw ci yoon loolu laa leen bëggoon wax à titre introduction waxtaan bi nag dinaa fexe mu bañ a gudd trop parce que dama bëgg ñu saafoo waxtaan pour ngeen mën ma poser ay questions waaye dama ko def ci juróomi pàcc dañu gis ne li tubaab di woowee scandale maanaam njombe ci projecteur bi daf ci am ay njombe ci juróomi wàll bu njëkk bi mooy wàllu économie mooy koom xaalis bi nga xam ne moo toftalu ci ni ñu nar a doxalee train express régional bi ñaareel bi mooy li ñuy wax montage juridique maanaam nan la ñu fexe ba tëgg ko ba mooñ projecteur boobu ku ci nekk lan mooy sa say sa taxawaay ak lan nga ciy am ñu gis ne foofu itam dafa am ay njombe ñetteel bi mooy côté social maanaam projet bu mel noonu boo koy def da fekk ay junniy junniy sénégalais yoo xam ne dañu établir dëkk am ay kër ñenn am seen ay entreprise ñu dindi fa jële leen ko waaye li ñu leen fa baaxul mu doon beneen njombe boo xam ne gouvernement du Sénégal def na ko muy ñett mooy côté institutionnel loolu doon toujours ci mooñaale bi la ñu ngi xool rôle bi nga xam ne moom la ministère des transports joué moom la APIX joué ak moom la ci SETER keneen ak keneen joué dinañ ci ñëw. bu mujj bi nag mooy côté fiscal côté impôt maanaam boo boolee ñeenti njombe yooyu yëpp yemuñu foofu daf ci am juróomi juróom cinquième njombe en tout cas bu ñëw boo xam ne c'est très récent ñëw toftalu ci. donc ça va être cinq scandales social institutionnelle et fiscale moom lañ bëgg a waxtaan ak ci anam yu gaaw côté économie bi mën na bañ a gudd li tax may commencé côté économie bi c'est pour que ñi ñuy déglu xam lan mooy enjeu lan moo waral wax ci yépp parce que ñenn ñi dañ naan defar nañ train train bi rafet na am na luxe am na njariñ ci Sénégal donc bu fi nekk di wax ci train bi rek da ngaa contre Macky Sall da ngaa contre gouvernement Macky Sall bëggoo lu baax ci Sénégal ñu leen di fàttali ci côté économique boobu ne dafa am ay enjeu enjeu bi tey mooy trois cent milliards cent milliards Sénégal yoo xam ne dañu war a na nan lañ koy changer nan lañ koy gérer trois cent milliards yooyu ci estimation yi nga xam ne SENTER ñoom ñoo ko defal seen dafay joxe ne chaque année mooy jaay billet yi dina dinañ ci am soixante milliards puisque ñoom ñu ngi préparé defal contrat c'était pour juróomi at contrat boobu dafay nekk soixante milliards fois cinq day nekk trois cent milliards. donc li waral coow li li waral dossier bi intéressé ñu bañ wax ñun mooy trois cent milliards yooyu nga xam ne ci investissement Sénégal bu sept cent quatre vingt milliards ci la nekk nan lañ koy doxalee donc loolu mooy enjeu te chiffre yooyu pour ñu arrivé ñoom dañu defoon li ñuy woowee ay scénario tendanciel defoon nañ scénario ne thèse bu commencé deux mille dix par exemple dinañ am treize milliards de recettes par année ci treize milliards de recettes par année boobu vingt et un millions de passagers. loolu mooy bu commencé woon deux mille mais commencé wul deux mille dix neuf mu ngi commencé deux mille vingt deux bu commencé deux ñuy jàpp ne dina def chiffre d'affaires bu vingt trois milliards. ak 33 millions mais chiffre yooyu yëpp ñoom dañu ko xoolaat parce que terre bi dafa war a rentable boo xam ne xam nañu ne évaluation yooyu ñu defoon ne évaluation yu ndaw la donc finalement l' évaluation globale bi nga xam ne waa SENTER ñoo ko moo tax ma ne leen toujours man damay liggéey ak chiffre gouvernement parce que bëggu mu am contestation donc seen chiffre ñoo ñu wax retenez le bien que milliards de recettes la ñuy def ci billetterie yi muy trois cent milliards donc coow li coow li mooy trois cent milliards yooyu na lañ koy gérer bénéfice bi ci am fan dem est-ce que Sénégal daf ciy gagné wala daf ciy ñàkk donc loolu mooy enjeu économique bi mooy enjeu numéro un bi deuxième enjeu bi mooy enjeu juridique bi maanaam ni ñu ko mooñee ñun nag yàlla dafa def ma nekk président parti Awalé yàlla dafa def dama ma jàng tuuti droit am ci tuuti pratique d'habitude lu mel nii bu amee ci dëkku droit te yàgg na am Sénégal état dafay yor alalam ne alal ji nan laa ko a gérer maa ngi expliqué keroog ne pour nga gën ko mën a comprendre da ngay jël image surga ñun ku ci ne am nga tool wala nga am maam yu am tool wala yaay yu am tool dafay mel ni tool bi tey mooy raay c'est-à-dire chemin de fer Sénégal ak train express régional état du Sénégal ne ah lii kat man mënu ma ko doxal sama bopp parce que dama am yeneen projet yoo xam ne dama ciy liggéey naa wut ku ma ko jox état du Sénégal ci projet bi moom moo dem wuti xaalisam 780 milliards yoo xam ne dañu ko leb ay banques ay partenaires au développement donc Sénégal moo investir loolu Sénégal mu investiree lool mu dem nag wuti koo xam ne moo koy sàmmal loolu kooku koy sàmmal loolu mooy surga donc tey Sénégal dafa jënd suufam. jënd ay tool jënd ay garabu màngam jënd ay garabu li nga moom jënd lépp maanaam Sénégal daal moom moom lépp ba mu wutee lépp ba pare nag mu ne naa wuti surga boo xam ne dafay ñëw rek di ma bayal bu bayee ba weer bi dee li mu ciy génne mu xool ci moom yan charge la ci def yan investissement la ci def jël bénéfice am li ci des man mu jox ko sama bénéfice loolu c'est très important ñu fàttali ko parce que dafay wane ne Sénégal moo jël risque yëpp parce que projet bi bu doxee ak bu doxul Sénégal moom mooy fay bor bi Sénégal mooy fay 780 milliards. léegi yu mel noonu boo koy doxal dafa bari ay catégorie man nga ni concession concession maanaam mooy surga ba ngay jëli danga naan kon man maam moom sama tool waaye yow da ngay bokk ci investissement bi. bu doon tey terre bi nga ne investissement bi 780 milliards la nga ni ah yow mi nga xam ne yow laa war a jox sama tool mooy SETER bi ñuy yow demal nga indi deux cent milliards nga boole ko ci loolu mooy contrat de concession bu dee SETER dugalu ci un franc effectivement SETER dugalu ci un franc maanaam nekkuñu ci contrat de concession kon le ministre de l' économie numérique bu muy wax keroog devant des millions de sénégalais ne contrat de concession la juum na xamul lan moo nekk ci contrat boobu nga xam ne ñu ngi ciy waxtaan pourtant au niveau du conseil des ministres loolu du ministre loolu mooy benn. Euh, boo ko jox deful contrat de concession mën nga def li ñuy woowee contrat d'affermage contrat d'affermage mooy toujours exemple lu surga bi nga jox sa tool waaye bu boobaa yoon nangu na ni bi moom du ci dugal investissement wam yow yaa moom sa investissement moom mooy ñëw doxal bu doxalee ba pare dinaa ne la ah man kat fay naa courant lii dinaa ne fay naa ndox nangam ak nangam ak nangam boo bare bénéfice bi ngeen xam ne moo génn ci tool bi mooy bi moom mu jël li mu moom yow nga jël li nga moom ma fàttali leen ne tool boobu ñuy wax mooy hmm. tool bi nga xam ne mooy valeur bu trois cent milliards sur cinq ans valeur bu année par année muy xaalis bu bari léegi boo xoolee kees bi ni ñu ko tëggee contrat d'affermage boobu lay xaw a nuróol mais dinaa ci ñëwaat bu ci kanamee bu ci kanamee léegi le DG ci boppam bu muy wax dañu sous-traitance ma raconté leen très rapidement donc Sénégal moom moom alalam d' accord ne Sénégal moo war a xool 300 milliards yi nan lañ koy gérer d' accord ne mais ba président Macky Sall yëkkatee kàddu ne Sénégal dafa bëgg projet bu mel noonu normalement Sénégal yow yaa war a tijji sa marché xool kan ngay liggéeyal parce que yaa moom sa alal bu doon gël a yaay xool kan ngay loué bu doon tool ñu ne yaay xool kan ngay jox surga mais ba président de la république Macky Sall waxee ne dafa bëgg def français yi mooy SNCF ak RATP muy ay ñaari société française ñoom ñoo contacté le président Macky Sall donc ñoom ñoo bind lettre le 30 octobre 2015 président Macky ne ko ah yow kat dégg nañ ni da nga bëgg a def train express régional maanaam xaaruñu Sénégal ne moom nii ak nii lay doxale marché donc ñooñu ñëw ci jiitu SNCF ak RATP bind président Macky Sall lettre le 30 octobre 2015 ne ko sa train express boobu bari na njëriñ dañu bëggoon ñu liggéey ci ñaari fànn fànn bu njëkk bi mooy bu ñu tolloo ci exploitation exploitation mooy na ca mujjee bu leen fàtte ne am na 780 milliards yoo xam ni moom na ñuy investir balaa nga yëg si ci exploitation donc ñoom anticiper nañ loolu yëpp ne leen bu ñu yeggee ci cëppaandaw exploitation ba dañu bëgg ñun SNCF <coughs> ak RATP ngeen jox ñu ko ñaareel bi mooy boo leen ñu ko joxee balaa ñuy commencer exploitation bi dinañ leen defal benn centre boo xam ne ci lañ leen di jàngale yéen Sénégal li ñuy defee liggéeyu raay centre boo xam ne affaire mobilité urbaine ci la nekk ñaar yooyu la ñu proposé bañ ko waxee gëm gouvernement Sénégal bi moom alalam mais a ful la xool ne moom moo war a gérer bu ko seetal alalam mu ne leen d'accord naa nañu signé un protocole d'accord gouvernement du Sénégal le ministre de des infrastructures et des transports signé ak ñoom contrat le premier protocole mooy boo xam le protocole du décembre donc protocole SNCF RATP donc c'est même pas le gouvernement français état Sénégal représenté par le ministère donc foofu la njombe bi commencé c'est-à-dire que déjà en décembre 2016 loo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 phase de pré-exploitation avenant boobu moom lañ signé le avril instant boobu nag la APIX dugg si en jeu parce que normalement c'est le ministre des infrastructures et des transports moo ko war a gérer ñu defal APIX maîtrise d'ouvrage délégué foofu nag la APIX duggee foofu la njombe yi gën a commencer encore ci avenant boobu wax ci lañ ca waxoon yëpp mais tubaab bi na leen SNCF ak RATP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 kenn mënul train ci àdduna France rek moo mën train te ci biir France boobu SETER moo mën train te SETER boobu mën train novembre 2018 lañ ko créé mu nekk filiale bu CNCF ak RATP SETER DG SETER ñoo wax loolu ñu ne kon da ngeen ñu war a defal entente directe ensuite ci biir lettre bi ci seen njombe yi juum nañ sax bari ci société française yépp SNCF rek moo ko ci man loolu juune la parce que ñoom dañu waroon wax ne ci adduna bi SETER rek moo ko ci man mais dañuy société française yëpp ça veut dañ koy jox France lañ koy jox leer na seen bopp depuis le début ñoom argument yooyu la ñu joxe ne dañu bëgg nag léegi encore une fois le décembre ñu defal leen contrat boobu pour entente directe alors que remplir ñu condition yi le 23 décembre quatre jours avant l'inauguration waa DCMP tontu ne leen lii ngeen di entente directe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 c'était e door a signé waat beneen contrat de performance ak SENTER léegi si seen lettre DCMP e boobu argument boo xam ne tam argument cuune la nañ ma baal waa SENTER boo leen fan yi di ñëw boo leen di dégg ñuy toll ci loolu la ñuy insister dinañu leen wax ne ñun dañu jàpp ne am nañ contrat ak SENTER parce que am nañ avenant numéro un boo xam ne d'accord nañ ak SNCF avenant numéro un boobu ma rappelé leen ne du contrat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 mais ci contrat partenariat public privé boobu mu am ñaari aspect aspect bu njëkk bi mooy parce que c'est DCP daf leen ngeen bëgg dem c'est-à-dire contrat dafa am foo leen di jaar fi ngeen dinaa ci ñëwaat bu ci kanam mais moo wax ne même loolu bu ñu ko defee dañu jàlgati yoon scandale parce que kon loi partenariat public privé boobu ñu bëgg a def borof ndol ba defal contrat c'est-à-dire boobu mars deux mille vingt et un bii la existé matagul at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 ñoom disiri na ñoo koy jox tubaab yi parce que juum nañ ci seen lettre yi wax bind ko ba pare nag bëgg a forcer loi bi pour def leen contrat donc tey au 6 juin SETER amul contrat SETER moo war a gérer suñu 300 milliards loolu ngeen di jàpp le temps que may ñëw ci leneen aspect social je vais essayer d'aller vite mooy impacté man du ma porte yi mais sénégalais laa gis naa li ñuy dund dama leen ciy jox benn cas pratique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 donc bu ñuy wax problème de sécurité ku ñu war a tey ñooñu lañu war a gën a tey jëkk tey mais ñooñu ba tey ñoom ñoo ko des cundum teggiwuñu leen parce que dañuy jaay arrogance trouvé wu ñu accord ak ñoom te parce que trouvé wu ñu accord ak ñoom bàyyi leen fa ça veut de sécurité ak utilité publique yi ñuy wax taxaw mais ma ñëwaat ci exemple bi trente personnes six pères de famille donc six ménages une maison de trois cent mètres ñu proposé leen pour le bâtiment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 schéma institutionnel boobu yëpp plus le ministère des des des transports nga teg leen de pour les pour mu gérer moo la neex parce que APIX tutelle am direct présidence la la République lañ koy rattaché donc lépp lu ñuy décider ci terre bi Mountaga Sy ak Macky Sall ñooy di pelloo di décider ministre yëgul statut yëgul keneen yëgul ñoom ñooy jël seen ay décision moo tax njombe bu ci am seen responsabilité la ñoom ñooy loolu tey en terme de d'équité sociale tey nee nañ ñu bi am na 1000 employés ñu ne ñu 1000 loolu dinaa ci ñëwaat 16 xaw ma ñoo ciy étranger ñi si des ñëpp ay sénégalais lañ mais sénégalais yi nekk ci biir Sénégal tey ma leen di féliciter ñun li ñuy wax du contre ñoom te proposition bu ñuy proposer pour que sénégalais yooyu continuer nekk ci liggéey di daan seen dooleel. mais est-ce que mënoo teg un schéma social. cent et quelques yi nekkoon Transrail nekkoon ci chemin de am ci expérience. est-ce que mënoon trouver defal leen priorité à l'embauche est-ce que dafa jafe mais parce que secteur bi nga ko jox nga ne société de droit sénégalais tam moom moo ko amoo fa ndogal moom mooy bañ tey waa Transra yooyu nekk ci liquidation judiciaire kenn ki mu may wax démb dama même boo actuellement duñ la en charge mais ñooñu ils sont pas moins sénégalais que les sénégalais yi tey Sénégal mi nga xam ne mooy joxe contrat moo waroon am fulla ne leen ñii dañu am ek parce que ñooñu nag nekkuñu woon di jaay nekk ñu woon di jaay ndox wala di football ce sont des cheminots mais ñooñu defal leen priorité à l'embauche bi tuuti mais gouvernement Sénégal amul fulla bu tay di négocier loolu ci contrat secret loolu nekk dem un problème boo xam ne mu ngi jóge ci montage institutionnel ñu jël lépp jox ko APIX muy buur di bumi dernier point mooy le dernier scandale fiscal matagul dem un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 tenez-vous bien SENTER xam nga lan lay demandé pour déficit yu 6 milliards yooyu nga xam ne seen ñàkk xarañ moo tax prévoir ñu ko ñoom jën contrat boobu la ni moo ñoo ñoo ko yokk te gisu ko pour rattraper 6 milliards yooyu waa SENTER nee nañ seen ministre nee na ñu demande ministre des finances mu ni nañu changer suñu code des investissements changer suñu code des impôts donc pour les beaux de SENTER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 Euh, côté vingt dix sept décembre mën naa leen wax affaire en tout mois de décembre bi lañ ko bind. donc dans la précipitation quelques jours avant le lancement ñu ni ñu ngi leen di demander donc ñu changer code des investissements beeg yooyu mais en attendant fexe leen ba loolu ñu applicable ko au premier janvier deux mille vingt et un def loi de finances rectificative muy beneen jaww ji juridique encore. donc li ñu bëgg xam nañ ne mënul mais def leen rek ne bind leen ne de finances dina ñëw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 c'était que di avis technique ñu xool le ministre des finances xool le ministre des transports ñu xool le ministre de l'aménagement du territoire loolu moom c'est pas demain la veille quoi loolu di pare dafa loolu bu paree la ñuy ñëwaat ñu jox leen autorisation pour ñu def contrat partenariat public privé donc tey parce que man nax ne c'est l'un des plus grands scandales en tout cas juridique bi ma gën a xam ci Sénégal nga jël marché bu tooy noonu ñoom seen bopp dans leur discours ñoo ne c'est l'un des Sénégal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 mais di gën a scandaleux de l'autre transfert de technologie assistance technique moom la ñuy woowee savoir faire gis nga même contrat bi ñu bëgg a jox SETEC xam nga ñu ngi naan di ko bàkkoo naan dañuy def contrat cinq ans au fur et à bu sénégalais yi di man bon ñuy dindi tubaab yi au fur et à mesure di ko bàkkoo mais même noonu ñuy jàngale biir sénégalais yi biir SETEC te sénégalais yi bokk SETEC loolu dañ koy fay dañ koy fay tubaab alors que tubaab bi yaa leen jox condition pour mu